salaamaaleykum Leuz TV salaamaaleykum yéen ñi baaxoo di seetaan Leuz TV ayca ñoo ngi fii tey Keskaay benn dëkk ñaari gaal ñu ñëw ci kan nag ci Youssou Ndiaye Youssou Ndiaye moo fi am programme muy lan sotti albumam sotti albumam macha mu jógee Allemagne nag di def fii sotti albumam daal di ciy woo Leuz TV mënut a ñàkk ñu daal di ciy teew su ngeen gisee sama gannaaw nii moom moo fa nekk di ko animé. daal koy wuy si nag mu def sotti album boo xam ne afto beat la afto defe naa noonu de xaw ma afto beat daal moom daal reggae la reggae la day mouvementé rek ay ca ngeen tuuti nag ma jël ak Leuz TV bi du yomb kon du new maa ngi Youssou Ndiaye goro la ci Youssou Ndiaye mu jógee ba Mboro ñëw ci soirée bi moom tamit nan nga gisee sorti album Youssou Ndiaye waaw sorti album bi ginnaaw bu nu sante yàlla jul ci Seydina Mohamed dañuy sant Youssou Ndiaye di suñu goro ndogo mi yaayam ak sam ak man ñoo bokk benn yaay léegi nag dañoo kontaan vraiment ci album bi neex na torop vraiment dañoo kontaan li mu way suñu goro ndax daf koo sagal ba pare da koo suturaal teral na ko wax dëgg yàlla vraiment ay famille ñun ñëpp ci li Youssou Ndiaye defal suñu suñu suñu suñu doom yi macha allah kontaan nañ trop mooy tax ñu def dérangement ak déplacement jóge ba Mboro ñëw ba fii. teewaay bi euh, lii tax ma ñëw teew fii nii Youssou day sama rak sama xarit ñoo nekkoon même chose ci orchestre ñoo bokkoon même orchestre ñoo bokkoon même orchestre li mu def nii nag dama ci kontaan te dama koy rafetlu ko ma sa déggal la su waxee ma mais nu may def ma ne ko nii nga def nii nga def nga def mais ça a porté dama koy ñaanal. yàlla na mbir mi jëm ca kanam amee ko mu ñëw yéegalaat la ci kaw seen bi gëjoon nan la gis ci kaw seen bi mu ñëw yéegalaat la ci kaw seen bi daal di lay teral nga jël micro way loolu nan la def ci sa xol. waaw moom fu ma ko fekk bu ma wooyee dama ne ko foo taxaw damay taxaw sa wet du ma taxaw sa ginnaaw nag sa wet laay taxaw du ma taxaw sa kanam sa wet laay taxaw léegi pour firndeel que ni ma li may wax dëgg la ci man nit boo nekkee ceew su defee affaire boo xam ne bu rëy la da nga euh, wax ba àddina sépp xam ko euh, aar bi moom a demee noonu wax sa mbaaxu waay du wàññi dara ci aca Leul TV ba tey ñoo ngi jàkkaarloog As ku ko xamul ku nekk dégg nga ko ngeen koy gis ci télé bi mu bokk turu bu Mansour Mbaye Madiaga kon kenn dootu ko présenté As nuyu na waaw asalaamaaleykum Daaro tey dama ñëw rek sagal si sama rak ndax Youssou sama rakk la li muy def aussi neex na euh, c'est un grand musicien jóge na fii yàlla def mu émigré bi mu demee aussi exporté na culture Sénégal yàlla may ko fa ndam mu ñëw ni day lancé albumam à Thiès may grand frère am parce que man ak Ndiakhate benn lañu bokk naa si ñuy encadré Youssou ba egsi fii moo doon waral sama teewaayu tey. Euh, moom it kenn du ko mu bokk tamit ci turu bu Mbassou ma Madiaga kii mooy Ndiakhate euh, mu bokk ak euh, Youssou Ndiaye ndey ak baay nuyu na fay na la daaro kontaan lool ci seen ñëw yaakaar naa ni nga def présentation noonu la Youssou maa namp jox mu namp lii muy fierté bu mag a mag ci ñun di frère boo xam ne wax dëgg yàlla et ñun dañ koy bàyyi ak yàlla rek ndax frère bu ñuy ndamoo la frère la boo xamante ne wax dëgg yàlla. surtout man sama xarit la sama lépp la. mu ñëw mu demoon na euh, Allemagne ngeen gis ko muy def afrobeat beneen musique indi beneen musique ñëw def sotti albumam loolu nan la def en tant que frère loolu nan lay def. waaw Daara loolu lu mag la ci ndax euh, loolu day wane ni demul Allemagne toog yaa ndax tey bari na artistes yi def Allemagne ñëw wax ma ni ma sarak yi kat na mu nekk Allemagne lu rafet la kon loolu suñu fierté la. fierté boo xamante ni fi mu àgg ci ñun wax dëgg yàlla sori na ci ñun lool tey moo ñaanal boppam moo ñaanal boppam nag moo ko waxee junj la boo xam ne ñu bari xam na fi may waxee ndax xëy na man je suis mieux placé de le dire pour plusieurs raisons. ñu taxaw ak jabaru Youssou Ndiaye moom tamit ki mooy soxnaam macha allah kon euh, loo xam-xam ma dem ma dem ba laa xam boppam dama naan Maria Ndiaye te ñu laaj ko comme mooy jabaram te jëkkër jabar da caa ko laaj rek nuyu ça va chérie. waa ñu yow yaay soxna mu jógee Allemagne ñëw indi album bu bees sàq di def sorti albumam def son yoo ne afrobeat la afrobeat muy way ci beneen loolu nan la la def en tant xanaa di ci kontante di ci kontante lu bëree bëree bëri di ko ñaanal moom Youssou di ko ñaanal anniversaire am bi mu yàgg koo féete man moom di kontaan moom lu bare bare bëri ndax nit ku baax la. nit ku am yërmande la nit ku mën a sagal jigéen Ndiaye maanaar naar yaa ngi cooli cooli moom mii la macha allah mu daal di def sorti albumam comme ni ma leen ko waxee woon sànq rek gin ba léegi ñu ngi fi jëlal leen ñi fi ñëw ñëpp nag waaye mënut a ñàkk moom ñu laaj ko mu wax ñu ndax loo xam-xam ma demba ma demba gën laa xam boppam moom mi def cooli sorti album macha allah mu demee nii ah nanu wax secret bi lan la Youssou nuyu na waaw sama jigéen Daaru maa ngi sant di la gërëm euh, di kontaan vraiment ci seen teewaay waaw di kontaan aussi vraiment ci Leuz TV di rafet lool liggéey bi muy liggéey waaye sorti album bi moom Daro dañ ko nii rek la moon demee nii rek la moon demee alhamdulilah sant yàlla bu baax. <laughs> waa kees wuy si la te nga gëj fi loolu nekk Allemagne macha allah def euh, liggéey bu rafet bi muy international album boo xam ne nii euh, boo xoolee defe naa ci afrobeat lay yëngu ba pare ñun ñu ñu ñu euh, adapté ko sénégalais yi bëgg ko macha allah loolu loolu ban secret la ak liggéey bi naka la demee. waaw loolu soo gisee sama jigéen dama ci sant yàlla bu baax déjà parce que nit ñi nag kenn moomu leen ah nit ñi kenn moomu leen Euh, je pense que foo nekk seq ak jàmm nit ñi ak salaam parce que bës boo nekk rek bés lay xaar donc man damay def lu may kontaan ci waa Thiès ci seen mobilisation bi ñu def tey ñoom ñëpp wuy si ma ma kontaan ci trop trop trop trop donc euh, vraiment man affaire bi daf ma dépassé ba mënuma sax xam lu may expliquer xanaa sant yàlla rek sant yàlla et puis mu yokk ma lool lool lool lool lool donc vraiment daal. sama mbégte mënu ma la wax fan la commencé mënu ma la fan la yem vraiment am naa ci contentement bu wér a ci Thiès. nga jël ñaari ndaanaan yoo xam ne fii la nekk muy Secka ak euh, beneen tonton bi Ablaye Ndiaye Cosaan nga yëgal leen ci kaw seen bi teral leen kenn ki nga décoré ko ba pare teral ko ci sa ñàkk loolu ban lien nga am ak ñoom ba pare ñoom ñu wax ci yow lu rafet. waaw mooy li ma waxoon rek sànq parce que nee la nit ñi kenn moomu leen soxna si te lu waay di seq ak rek na doon lu rafet. kenn ki di Ablaye Ndiaye cosaan defe naan kenn doon ko présenté artiste international la dama ko sargal rendre ko ci soirée bi ba pare ma woy ko suma album bu bees parce que li Alioune Mbaye nee daan wax nit ki boo koy sargal sargal ko ci bu mu jotee te je pense que du moom rek bari nañ fa ay euh, ay doomu aadama yoo xam ni vraiment liggéey nañ ci réew mi loo xam war nañ leen mën a sargal jox leen li ñu moom séddoog ñoom nag aussi li ñu moom sargaleen leen ba pare teral leen daaro ñun ay Sénégal loolu lañ xam loolu lañ ñu ne jaar nga ci moom doon def batterie tey nga ñëw di way mu invité ko ci sa scène loolu nan la def ci yow waaw Adama Seck kooku dañoo yàgg kooku depuis temps wu Samba Alaar defe naa ni moom mooma njëkk a jox fit ma toog jouer batterie ku fàtte li la fal nag doo xam ne lay folli waa donc Seka aussi doon suma nitu démb franchement ma kontaan trop ci bi mu teew fii tey bokk ak man scène bi vraiment lu ma def rek Daro xeeb naa ko te buñ ma yàlla mayee li ma bëgg ñoom ñëpp incha allah euh, am naa ci mu yéene daal wax baaxul. ayca album bi mu ngi ci marché bi. waaw album bi bis gi tey mi ngi ci marché bi album bi mi ngi tudd Cosaan. Cosaan Cosaan laa tuddee album bi. ku bëgg Cosaan nooy ku bëgg Cosaan da ngay euh, contact Sénégal mën nga contacter ku ñu wax Maguette Badiane Ndiaye di suma frère numéro téléphone di 77 378. 0471 wala nga contacter beneen numéro am di 77 408 56 56. bu de au niveau de l' étranger Allemagne mën nga ma contacter Youssou Ndiaye double ngeen baal ma numéro bi xaw naa gudd double 0 49 152 11 95 73 44. merci beaucoup Leuz TV gërëm na la cantal ngërëm ñeel na ñu di la ñaanal nag album bi nekk ay album yi album te mu jig la ci kattanu yàlla. merci beaucoup Daro man maa leen di remercier vraiment kontaan naa trop ci tawaay bi ngeen teew fii waaye nag léegi incha allah danañ ko bisaat du yàgg dara.